asalaamaaleykum ñu ngi leen nuyu baax di leen ziar ñu ngi leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey boo xoolee écran bi suñ écran téléphone bi ni mu mel ci vidéo boobu ci lañ bëgg ñëw incha allah xam nga ni suñ écran téléphone euh, boole nañ ci ñaari application par exemple euh, soo xoolee bi ak bi nii benn bokkul parce que bii bosama ngi yem bi bii bosama ngi yem fii nii kon bokkuñu. ñaari application yooyu la yoo xam ne da nga koy mën a seetaanandoo à la fois ci benn téléphone ci benn jataay ci benn jamono. Euh, balaa loolu su fekkee euh, sa première fois ngay jot sama chaîne wala abonné ci bu la neexee mën nga abonné fii nii ci bouton rouge bi nga bës bouton rouge bi pour abonné après nga bës cloche de notification bi pour bépp vidéo bu ñu defate rek nga mën ci jot incha allah euh, donc soo bëggee loolu. vector nga ñëw ci base de recherche bi nga bind fi euh, lii nii comme gis nga ni ma ko bindee boo ko bindee dina la présenter exemplaire yi yëpp nii nga xool ba gis logo bi comme man téléchargé naa ko ba pare boo cliquer ci kawam xam nga ni ñu téléchargé ci euh, euh, Play Store léegi application bi mi ngi nii ginnaaw bi nga ko téléchargé ba pare da dugg ci biir boo duggee ci biir xar bi nii lay mel nga dikk fii boo duggee fii nga cliquer ci kawam boo cliquer mu génneel la tableau bi nga ñëw ci plus bu njëkk bi fii boo cliquer ci kawam mu génneel application yi pour tànn loola ban application nga bëgg a pour boole ko léegi man ma sélectionné hadis bi su ma ko sélectionné ñëwaat fii nii ci plus bi mu bësaat sélectionné alquran bi bu ko defee mu bës ci e, enregistré mu génneel di ma ñëw ci ajouter automatiquement euh, à l'écran wala dans l'écran voilà boo ko defee nag boo dëppaatee automatiquement da nga koy gis fii nii gis nga instant bi mi ngi nii voilà kon naa gis nga ko bu baax boo dikkaatee da nga koy gis da ngay gis xadis baa ngi ne la ci kaw alxuraan baa ngi nii ci suuf léegi ñoom lay boole nii da nga def da ngay cliquer ci kawam voilà léegi eh, cliquer nga ci kawam génne na la lii alxuraan baa ngi nii xadis baa ngi nii voilà xadis numéro alxuraan baa ngi nii voilà xad sami allahu xalu latif tijaati euh, muy affaire bu am solo quoi application yu la neex ngay boole euh, juste nag euh, léeg-léeg day ba ñaari youtube nga boole ndoo ko waaye man na nangu application yu bëree bëri te lu am solo la su fekkee am na ñaari application yoo soxlaandoo en même temps dina jaajëfal bu baax loolu ma nekkoon vidéo bi asalaamaaleykum